وضحظوا شبه مقاتل بن سليمان وعمر بن الكرام والمعتزل والخوارج وغلاة الحنابلة وغيرهم من أهل البدع وصائر الفئات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته mbokk yi ñu ngi leen di wax xiyaakumullah del siwaat ak yéen ci خادم mu fa seenee jàngat téere boobu nga xamante ne ni waroon bind na ko jëmale ko ci tasawuf muy taqdisul asxaas fi lfikri suufi ardan wa taxlil ala dawi lkitaabi wa sunna sëriñ xaalim ñu ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu defal la tawfiq ba lépp loo xam ne bëgg nga koo leeral yal na sunu borom yàlla defal la kattan googu ci mbooleem nitu yàlla yi nga xam ne docteur Mouhamed Ahmed Lo caricature na leen ci téereem bii yal na yàlla defal la barke ci barke nitu yàlla yooyu nga xam ne caricature na leen te nga fas yéene leeral lépp teg ko ci balance bu Qur'an ak sunna waxoon naa leen ni luwaay waay di wax na nga ko xam ndax xale yi dañuy màgg xale yi dañuy màgg te lu waay dencoon ca biir armoire ya dees nañu wuti ko woon ko nit incha allah kon nag wahabiyoon yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di invité li ñu soxla rek moom mooy haatu burhanakum in kuntum sadiqin li ñuy wax moom leer na nañ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 صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد مبكي جروب لير الفصفص أدعية السلفية ينقل نريد للزيارة دينام برب تبارك وتعالى مدفع للتوفيق تلفون يكون النب دي جيتا بي سرين نور الله من يخلن ما يفتقدين به مبكي تيجي ممرضون سنو نياري الجتاي الجتاي ينخمني càllale gi nga xam ne tàmbale woon nañ ko jëmale woon ko ci téere boobu ci taqdisu asxaas fil fikri suufi yi ki ko bind di Mouhamed Ahmed Lo as-Sénégal yi gis ngeen ni kon jotaay bu njëkk ba leerloon nañ ci ay point yu bëree bëri leerloon nañ ci ne tasawuf du lu sosu tuuree sosu waaye tasawuf du lu sosu waaye tuur ci jëma moo sosu ñu àndoon ceeg Abdurahman ibni Xaldun mu leerloon ko ci njëlbeen ga àndoon ceeg al Qushayri عبد الكريم أبي القاسم القشيري رحمه الله ci Ar-Risaala leerloo nañ it ci ne as-suufiya dañoo bokk ci kuréeli ahlu sunna wal jamaa yi ndax ahlu sunna wal jamaa comme ni ma ko leerla woon ay kuréel lañ ay pàccaaj seeni xam-xam moo tax ñu nekk ay pàcc ndax dafa am ñoo xam ne dañuy féete ci wàllu fiq ñi leen wax al-fuqahaa am ñoo xam ne dañuy féete ci wàllu aqida ñi leen wax al-mutakallimuun wala al-usuliyuun am ñoo xam ne dañuy féete ci wàllu luga ñi leen wax al-lugawiyuun am ñoo xam dañuy féeri ci walu ar raqa'iq wa zuhd ci walu dëdd adina ak mbirum jëfi xol yi yi leen wax al mutasawwifa ni ko al Isfirayni ni leer la ci téeréem boobu di at tabsir wa kadhalika al baghdadi wa kadhalika ar ci kadalika di i'tiqadatu al firaq al muslimin المسلمين mushrikin leer lo nañ it ci ne waram ko ahlu sunna wal jamaa ci jëmum xéde yi ñu def ci ahlus sunna ñi leer loon ci ne shaati bi leer wax na ni wax ji mu waxoon ci ci almuwafaqaat fi usuli sharia ne ahlu tasawuf ahlu sunna dëppoo nañ ci ne ñoom ñoo gën ci suuf si ginnaaw yonent bi alayhi salaam leer loon comme ni ko cheikh islam junjee woon ak ya ci aj yëpp leer loon yi ci ne ahlu ahlu tasawuf ñoom dañoo joué ab rôle ci xeex ak bidaa bu ma ne bidaa nag mooy bidaa ju yàq diine ji moo tax ñuy wax leer loon it ci ne borom téere bii di taqdisul asxaas téere bi unwaan bi muy adresse bi mooy taqdiisul asxaas fi fikri suufi composé wa juróomi baat leerloon nañ ci moom lan la jublu ci taqdiisul asxaas ci ñeenti maanan ci taqdiisul asxaas ci ñeenti maanan leerloon nañ it al fikru suufi moom lan la ci jublu mu mel ni kon loolu moom leer la kon sunu ñaareelu jotaay tey bii ana ci lum jëm sunu ñaareelu jotaay tey bii nag ba tey génn gut ci munaqash munaqashatul unwaan maanaam génn guñ ci Euh, cadre bi ñu nekkoon génn guñ ci nitaaq bi ñu nekkoon fa ñu nekkoon génn guñ fa muy dañoo ubboon ab bunt bi leeral li ñuy wax munaaqa buntu boo xam ne mooy munaaqashatu unwaanil kitaab mooy jéem a lañ li téere bi tudd ak téere bi yenti baar yi nga xam ne moom tudd ak la mu dëxañ ci ay maanam maanaa bu nekk ndax wér naam déet euh, xam ngeen ni sunu point bu mujj dañoo dañ koo gaarloon rek waaye leeruñu woon dëgg-dëgg ndax loolu moo am wala déet kon tey jii ba tey dañuy dellusiwaat ci nitaaq boobu mooy munaqashatu unwaanul kitaab mooy liñ bët ak jàngat li nga xam ne moom la moom la moom la téere bi tudd muy taqdiisu asxaas fikki suufi ak lamu lamboo ci ay maanam leeroon nañ ci ne taqdiisu asxaas bu dee baatu taqdiis taqdiisu moom leer na lam ci jublu lam ci nee na moom mooy rafu shuyuuxi fawqa al manazil moy fekk ay nit yo xamne ay doomi adama lañ nga génne len ci cadre doomi adama jëme len ci cadre yàlla ñaaral moy di len jaamu ñetteel moy di bokalé ñendel moy yemo yemu di ko def ay doomi adama way dang koy def sax ay xeer ak i doj ñeenti yoy mo moo ci base taqlid asxaab ñeenti maanan yoy nak moy al ibada mooy ibadatul masayikh jaamu ay sëriñ ak fekk ay nit génne leen ci al bashariya ak yit ak shirk loolu lañ bëgg niqaas niqaas bi nag dañ koo tënk ci ay point ci ay point point bi ci njëkk mooy bala ñoo dugg ci niqaas bi dañuy leeral ma maana taqdis maana taqdis fi luga al arabiya baatu taqdis lan lay firi ci làkku arab buñ ko leeralee pare buñ buñ leeralee baatu taqdis lan lay firi ci làkku arab ci làkku arab sukkandiku ci ay معاجم اك اي مقاييس اك تيري بروم خم خم اك توخي لغويون اي تامل كو تيفام العرب بو ابن منظور جاتي معجم مقاييس اللغه بو ابي الحسين ابن فارس رحمه الله تعالى اك لدمن المعجم الوسيط وكذلك النهايه بو ابن بو ابن الاثير آه، وكذلك الفائق بو زمخشري اك معاني القران بو زجاج اك التفسير تفسير ابن كثير اك البحر المحيط بو المم ابي حيان رحمه الله تبارك وتعالى buñ leeralee maana taqdis lan taqdis lan lay firi loolu point bu yaatu la buñ leeralee taqdis dañoo bëgg dañoo bëgg ixaata mawdu bi mooy baatu taqdis lan lay firi ci luxal arabiya yan maanaan la am ndax benn maana la am wala ay maana yu bari la am buñ ko leeralee pare dañuy dañ koy daanale benn tomb ndax taqdis ndax fekk keneen ku dul yàlla nga la koy taqdis loolu daga loolu daganut sharia des na ko leeral loolu mooy composé point bu njëkk bi loolu point bu am solo la mbokk yi ndax point boobu dana leeral lu baree bari dana leeral ci ne baatub taqdis maanaam taxwil la ak tiital la boo xam ne dañ koy tiitalee waaye ku ko lëñ bi da nga gis ne du baat boo xam ne euh, mi ngi mel ni mbir la moo xam ne léegi ci waaye boo ko boo ko doo fekk dara loolu nag dana yaatu lool danañ xam la mooy taqdis bu soobee borom bi tabaraka wa taala euh, ba mën koo delloo waa ji nga xam ne moom daa jàpp ni taqdis mooy fekk ay nit nga génne leen ci kàllaama doomu aadama ba pare di leen jaamu wal iyaazu billah loolu mooy tomb njëkk bi ñaareel tomb bi mooy maana taqdis inda suufiya mooy ginnaaw bu ñu leeree lan mooy taqdis ci luxal arabiya ak la ci aju lépp ci ay banqaas yaareel tombi bi mooy taqdis nag mooy lan ci ahlu tasawuf ahlu tasawuf mbokk am ay istilahaat تقديس اهل التصوف ام نني اصطلاح بو خامني ميغي تودو تقديس لولي ساكو ليرال دا خامنا دا خامني بونجا يامون ريك دا نا ليرال تي ني واجي ليمو واخني موي تق موي تقديس ليمو ليمو واخني موي تخير موي تقديس اصحاب كي تصوف لول اك توما جو ري ري لا جو خامني والعياذ بالله تعالى يالنا كو بروم يالنا كو بروم جيغال لولو تميت دا نانتي اندك كودمن القاشاني اك كودمن الامام الغزالي اك ني نيو دوم نيوم تي تصوف loolu mooy composé ñaareelu tom bi ñetteelu tom bi mooy euh, leeral ci ne mbokk mii nga xam ne moo moo moo saxal ne ahlu tasawuf ci téeréem bi di taqdir asxaaf ñoom dañuy yàllaal dañuy yàllaal dañuy yëkkati seeni sëriñ génn leen ci cadre doomu aadama di leen jaamu ak di bokkaale borom bi tabaraka wa taala ak di jaamu ay garab yu demee noonu ndax li nga xam ne daal moo composé maani taqdis ñetti tom bi dañuy leeral ci ne lii lépp ahlu sunna wal jamaa wax nañ ko ci cheikh islam ñii ñëpp moom ñamu jàppee ahlu sunnat wal jamaa wax nañ ko ci Cheikh Islam Taymiya ànd ak loolu mu daal koy kii loolu tamit dañuy leeral ubbi ay bunt ci wàllu rububiyaat yi nga xam ne moom la ñu wéer moom lañ saxal moom moom lañ melalee Cheikh Islam Taymiya ak ci wàllu xaybiyaat mbir yi nga xam ne borom bi tabaaraka taala képp lañ ko ne woon mu jagoo ko te ñoom it moom la ñu yaxal seen téere chaque suur li nga xam ne mooy nisaa bi mooy melokaani borom bi tabaaraka taala ndax dafa am yoo xam dafa am yenn ci melokaani borom bi tabaraka wa taala yoo xam ne ndax yàlla moom képp ko jagoo wala léegi-léegi may ko doomi aadama da nga gis ne yooyu yëpp ni niñ ko waxee ci lam foofu tamit danañ fa yaatal ci lu bëree bëri toxale ci ay boroxox yu bëree bëri euh, muy ne kon mbokk mi euh, dafa def li ñuy wax dóor doom làq doom wala kumba am nday ak kumba amul ñeenteel bi nag ñu ñëw ci mbir mi ndax li wax ni ahlul tasawuf ci seenam njàngale da caa bokk mooy fekk ay nit génn leen ci cadre doomi adama jëme leen ci cadre yàlla ak di leen jaamu ak di ja yaani ak di jaamu ay garab ak di bokkaale borom bi tabaraka wa taala ndax wér na ndax loolu ndax loolu ndax loolu léegi dañuy dem loolu la ñuy wax loolu la ñuy wax at tabarri min at-tuham maanaam teggi tuuma dañuy dem ci ahlu tasawuf ñu laaj leen ci seeni téere tàmbalee ko ca masadiru njëkk ya ak masadirul atiqa ba ci masadiru mujj ñu laaj leen ba xam yéen jàngale li wala dit bu sore borom bi tabarak wa taala lol nak bala ñu ko tàmbale duñ dem ci ahlus suf direct waye dañuy ñëkke a laaj ibnu taymiya ndax li ahmad ndax li mbokk mi di ahmad lo wax ci terem bi euh tamu tamu mu composé maana taqdis ndax wér nam dit bu ko defee xay gis na ibn taymiya dana ko weddi won ci tuuti san ko ci allah ba ju bare nag danañ laaj al-qayyim abi bakr ibn al-qayyim abi abdullah abi abdullah ibn al-qayyim al aljawziya alayhi rahmatu rabbil alamin danañ ko laaj ko ndax lii Ahmad loo wax ne tasawuf ahlu ñoom dañuy jël ñeneen jàppe leen borom bi tabaraka wa taala taqdis leen génn leen ci cadre bi adaba jëm leen ci cadre al uluhiya wa rububiyya eh, ci cadre al uluhiya euh, ba pare di leen ndax wér nam déet da nga gis ne Cheikhul Islam Ibnul Qayyim dana ko wedd di sànne ko ci àll nga xam ne kon man ngeen ne tey jii dañuy jëfandikoo ay sëriñam di ko dal ci kawam maanaam dañuy dañ leen di géewal diggante Cheikhul Islam Taymiyya ak Cheikhul Islam Ibnul Qayyim ak diggante kii di Ahmad Lo ñu jàmbaarloo ci mawduu boobu bu ñu paree nag ñëw ci moom ci jëmmam maanaam ñu laaj ahmad loo ci jëmmam maanaam ñu laaj docteur ahmad loo ndax ahlu tasawuf ñoom dañuy jaamu ñoom dañuy jaamu ay xeer ay xeer la ñuy jaamu dañuy jaamu ay xeer ak ay garab dañuy jaamu dañuy jaamu seeni sëriñ wala ñoom dañuy jaamu borom bi tabaraka wa taala ba pare moom moom dañ koy laaj docteur maanaam dañuy laaj docteur ahmad loo ne ko ndax li docteur Ahmad Lo wax ni eh, ahlu tasawuf dañuy jaamu borom bi taba dañuy jaamu seeni sëriñ def leen yàlla génne leen ci cadre doomi aadama weer leen ci cadre borom bi tabaraka wa taala ànd ak di ak di bokkaale danañ laaj docteur Lo ndax docteur Lo li wax wér na loolu nag ki koy dégg dana xaw a jaaxal waaye lañ ci jublu mooy tanaaqut dafa tanaaqut loolu moo wax tasawuf lépp ànd ak lépp weddiwaat na ko ci beneen téeréem ak ci ay bërëb ci biir téere bi eh, te moom ci moom ci jëmmam moo wax ni تناقض تناقض فم امي تي واخ رك لامي تك مي بروم واخ جا لامي واخ دا تخاو ما واخنا كو تي بيم دوخالي واخي سي عبد العزيز الدباخ الفاصي عليه رحمه رب العالمين نانا واخ ما ساك نكاي ويندور فم امي تي واخ رك لامي تك موي نيت كو لامي واخ اك تيالام ني لولا دا تخاو دا نيك منحرف كون لول لنج جوبلي سي دا نان لا دكتور مو تونتو جي دكتور مانام دكتور لام واخ ليب دوكو ويندوات تناقض اك فين كلو غري ري bala ñooy daaneel bala ñooy daaneel diggante boobu mooy dañuy leeral ci ne tanaaxut nag lu yàgg la ci seen ngir mi euh, lu yàgg la ci ngir mi di adiya u salafiya tanaaxut yàgg na ci ñoom lool tanaaxut daal di moom doy na waar daanaka bokk na ca rek te ñëpp xam ko mooy albani albani alayhi rahmatu rabbil alamin ci tanaaxudaatam yooyu nga xam ne kenn ci gëstukat yi def na ci ñetti téere yu bokkut nga xam ne ñaare day wéral ab xadis daa koy génnal loolu tamit mooy mooy ak fenqloo euh, من قادم كي شيخ الاسلام تيمية جمم مع جلالة قدره وعلو كعبه تابنا كي ايفين قلو يريغي مرخ شيخ الان جي أه السنغاري عليه رحمة رب العالمين ودم جتير مودة لا يفقهون ما غير ابن في ابن جيبر بر لا شيخ الاسلام قلو تابنا كي ايفين قلو يريغي لي فينتي تيرم بوبدي الجواب الصحيح كيف مجموع الفتاوى فينتي تيرم بوبدي بيان تنبيه الجهميه في تاسيس بدعهم الكلاميه feeñ it kazalika ci téere boobu di alisto eh, déeret téere yooyu ma tudd euh, ibn al qayyim kazalik def na ko ci ay téere yu bare bari ba ci ñu mujj ñi dañ koy def ci ay tanaqubaat waaye loolu dañuy ñaanal borom bi taala jéggal leen ki nga xam ne mooñ ñi téer mooy ki nga xam ne fi nekk di dund yàlla na yàlla gundal aw fanam lool nag mooy Mouhamed Ahmed Lo bu ko defee mbokk yi loolu mooy tomb yi nga xam ne moom nal ci sunu ñaareelu jotaay bu jeexut ci guddi gi bu soobee borom bi tabaaraka taala daa daañu ko àggale bu ko defee mbokk yi ñu ñëw ci tomb bu njëkk bi ndax day lu am solo lool lan mooy taqdis baatu taqdis lan lay firi ci luga al arabiya lugawiyuuna yan maanan la ñu sard ci baatu taqdis baatu taqdis lan lay firi ci luga al arabiya bu ñu leeralee loolu ci lañuy ci lañuy ci lañuy mën a taxaw ci lañuy mën a joxe atte bu leer ci ne ndax تقديس نيت ولا كنن كو دول يالله لنا لودول يالله ولا كنن كو يالله كو تقديس نخ دغان ولا دغنوت با تخ مو وارال اب نزاع ديغنتي نياري كوريل يي دي ادو تخوف اك ادعيه السلفيه لو دا ام سولو موي تعريف موي خم دغ دغ مير مي نخ الامام ابن حزم دا دا واخني الحكم على الشيء فرع عن تصوره لول صاح دو قاعده ابن حزم واي قاعده قاعده لا بو خمني قاعده اصوليون قاعده قاعده لا قاعده اهل الخوف ودمكي الزروق كقواعد الروف بوكن قاعدة ينك أرتي كلمة ينكتك بوكن كموي الحكم على الشيء فرع عن تصوره كون بوكي أه بلا نيو داف دارا موي داني نيو دوبو سي لام موي التقديس في اللغه العربيه تقديس بعض التقديس لان في اللغه العربيه بوكي بعض التقديس بعض التقديس في اللغه العربيه ما دمتي لسان العرب ولا دمتي المعجم الوسيط ولا دمتي معجم مقاييس اللغه wala nga dem ci téere yu bare bare comme yi ma tuddoon kër lu demee ne wala nga dem ci yeneen ci kutubu tafasir ginnaaw boo ko toppee ba istiqraq da nga gis ne baatu taqdis du génn ñeenti nii yi baatu taqdis génnut ñeenti maana yi maana bi ci njëkk mooy ak tahaara mooy ak laab mooy ak laab danañ ko leeral ci faramfàcce gi ñaareel maana bi mooy albaraka barke ñetteel maana bi mooy at taalim ñeenteel maana bi nag mooy at nga gis ni kon معنى بن جكبي مي الطهارة بودي مكي لسان العرب لابن منظور رحمه الله تبارك وتعالى وبينك بين بنت بوخامي لكي دون لير المادة القدس مي الطهارة آه ابن منظور رحمه الله تبارك وتعالى لسان العرب داي وخني التقديس التطهير والتبريك بودي مكي لسان العرب داي وخني تقديس بن دوخي موي بن تقديس منيت ولا تقديس من لنين موي لابل مكو موي شتال مكو لوكو من مو خمتي لوكو من لابل نك واي لابل مكو بازو تقديس كون لابل نيت لي فيري سيتال سيتال سيتال نيت كي تي اي جيكو يبون مو خم سيتال نيت كي تي اي سك مو خم سيتال نيت كي لو من دون رك تقديس بازو تقديس موم دي مانيير جينيرال لامي فيري موي التطهير معنى بنجك من مو خم بوكو نتي اي معنى معنى بنجك te moo ca gën a siiw mooy at tathiir moo tax ibni manzour day wax ne wa taqaddasa ay tatahara bu ñee taqadda lañ ci jublu mooy tax tatahara mooy diw laab na bu ñee am na qadaa sax mooy laab na loolu ibni manzour mi ngi koy wax ci téere boobu di lisaanul arab kon baatu taqdis baatu taqdis la ci njëkk bokk na ci ay maanaam la muy firi mooy mooy at tahaara mooy ak laab ak set wicc boo demee ci ba tey keneen ci luqa bi yu ne yi mooy ibn al faris abi xasayn al faris te téere boobu di mujam maqays al luqa nee na al qaafu wa daal wa siinu aslun mi nga wax ci page deux mille cent trente six nee na al qaafu wa daal wa siinu aslun saxiixun wa azunnuhu min al kalaam al sharci al islaami wa huwa yadullu ala tuhri nee na baat bii di al baat bii di baatu taqdiis التقديس نك مجي هاي موم مصدر لا تدو تبو تفعيل مي بايكو جي القدس بو نيو كوس تقديس جي لوغال باب دي تقديس دي القدس لمي فيك لمي تك لمي تك ماي اغلاب اك سيك ويتش ماي اك سيك تقديس لمي فري ماي اك سيك اغلاب بو نيفات نك جبلو جي ني باي خل لولو الراغب سبحانه دينا كو لير جي كانام بو سوري تعالى كي مفرد القران بو نيي جبلو جي سيتو يارام ديرت لول مون وخ set maanawi moo tax ñu wax mooy tahaara maanawiya moo tax ñu wax ibn alfaris nee na tahaara ba ba lii di al quds ak taqdis la muy fekk mooy la muy fekk mooy ak tuhru mooy ak laab moo tax mu ne wa min dalika al ardu almuqaddasatu hiya almutahara bokk na ci lay gën a tegtal loolu mooy bu ñu nee al ardu almuqaddasa la ci jublu mooy mutahara mooy suuf soo xam ne dafa laab bu ñuy xadirat al quds mooy mooy xadiratu tuhr ibn alfaris nee na boo gisee ñu ne jibri ruuxul quds mooy dañ koo bind ci ak tahaara ci ak laab kon ibni faris tamit kazalika noonu la ko leeralee boo demee ci kazalika ci annihaaya fi garib alxadis wal athar bu ibni al athir al jazari rahimahullah moom it kazalika bi mu koy leeral noonu la ko leeralee nee na boo demee ci page 736 ci tabiid mayar nee na wa taqdis wal muraadu bihi at tathir taqdis bu ñu wax lañ jël mooy laabal laabal moo xam li laabal aw suuf wala laabal xale wala laabal maanaam laabal xale sax laabal aw nit wala laabal loo mën di doon setal ko ak loo ko mën di setal mën naa doon xissiyan ak maanawiyan waaye nag taqdis gi ñu wax liñ jublu mooy maanawiyan la ci jublu boobu tax taqdis laab boo xam ne da ngay set boobu taxul ñuy wax loolu mat naa xam mbokk yi dana gën a leer bu soobee borom bi tabaraka taala ibn al asir noonu la ko leeralee dane wal muraadu bihi at tathir baasu taqdis bi ñu koy waxee mooy laab mooy laabal nit baasu taqdis bu ñu ko waxee lañ ci jublu mooy laabal nit boo demee ci بودي ماجي بودي ماجي كين كي ورم خوخي خاني يعني دانيو تاليف سي مفرد القران موي الراغب الاصبهاني ومن كذلك نون لوكو لير لي التق التقديس التطهير الالهي موي اك لابل موي اك ساتال ا آه، ومن كذلك نون لوكو لير لي ا آه، بودي ماجي بودي ماجي بودي ماجي بودي ماجي امام ابي حيان كي البحر المحيط آه، ومن كذلك نينا نون لوكو لير لي مومن التقديس التطهير موي اك لابل كون كون بوكي ginnaaw waxi borom xam-xam yépp ci luxawiyuuna yi ak ci mufassiruuna yi ak ci borom xam-xam yi da ngay gis ne baatu taqdis boo ko defee ay maanaam mooy ak laab mooy set laab ci ay sikk wala laab ci yenn jikko yu bon yi wala laab ci jenn sikk ci sikk yi wala laab lu mu mën a doon da caa bokk ci ay maanaam daal ba ci njëkk mooy laab kon mbokk yi teg leen foofu seen baaraam ñaareel maanaa bi ci maanaa yi nga xam ne baatu taqdis dana ko firi ci luxal arabiya mooy albaraka barke mooy barke xëy ne bu ñu bu mëne tax taq na la moy jappé na la ko am barke wala defal na la barke tax buñ ñu tax taq na naa la de boo tafil comme niko ibn may waxe ci alfiyam ba ci siqa tafil moy jappé na la ko am barke wala barkel na la kon da bok ci makna at taqdis leer nañ ko moy at tahara bu ñaar moy al baraka barke mo tax bo demee ci lisan al arab bu ibn Manzur ibn Manzur day wax ne والقدس البركة ما baraka bu ñe al quds wa quds nak bu ñe al quds de ak taqdis ben la donte bokkuñ siqa nak waye ke ci mom la joge al moy al lolu ibnu yani يعني ابن منظور ما نكوي وحشي لسان الميزان لسان العرب بوري ماري كذلك كبير كبير لسان العرب ما يوحنا والتطهير والتبريك والتقديس والتطهير والتبريك لا بوك معنى تقديس ما يلم التبريك ما يبركه بركل ولا باركه كن بوك معنى تقديس بقي موي بركه بودي إن المعجم البسيط دا لي واخني المقدس المبارك دا بوكي معنى التقديس موي بركه باتاي كذلك نيكو ابن منظور واخ نون لاكو نون لاكو نون لاكو لير لي كون بقي تاي لين فوف سين بارام لي غيسنا كون بال تقلي في اللغه العربيه نيا جخنا لا نياري معنى تي مي فيري بيت نيك موي اك لاب بو نياارل وي موي موي البركه بركه kon mbokk yi ñaari macna ngokk ci baatu taqdis ba ci njëkk mooy ab tahara ak laab bu ñaari mooy albaraka ñetteel mooy ab taazim taqdis day firi taazim dañu ne taqdis nga nit julli ci màggal nga ko li wax taazim mooy ak màggal te loolu bokk na ci ko wax mooy Cheikh Mahamad Atiya ci tafsiram boobu i'raabul Qur'an nee na at taqdis at taazim wa tatahir daa bokk ci macna taqdis mooy taazim màggal nit bari ma ci bi ci bi fii suuratu Baqara laa jojo qaddisu lek قال إني أعلم ما لا تعلمون كن جزنا نبات التقديس دابوك كأي معنى ما التعظيم بدم السلف الصالح كن جزنا بدم أي ابن طبري طبري إننا التقديس هو التعظيم والتطهير تقديس ما يتعظيم مجنت كن بوكن كن بوكن بوكن كن لولم يفيد من الموي ما تتقديس دابوك كأي معنى ما يمجل ما يورمال نيك أجمجل أجبكو أكتشكو أه magal ko ak warmal ko ak wekk ko ak toj ko ci kaw loolu da bok ci gi motax mujahid dongo ibn abbas bo bi ngay fer laa joju won wax ni subbih sabbih bi hamdika wa nuqaddisu lak day wax ni nu'azzimuk wa nukabbiruk mooy baasu taqrir kon day da bok ci ay da bok ci maana yemi firi moy at ta'zim magal nit al imam ibn al imam ibn kathir mo dima ci tere mo de bi muy firi ba bi muy firi ba da fa wax ni bu ñu nee subuux tan bu ñu nee subuuxun lañ jël mooy tan wa bi qawlihim quddusun tahaaratun wa taazimun lah kon boo dajalee waxi borom xam-xam yëpp da nga gis ne kon baatu taqdis maanaam baatu taqdis daa bokk ci ay maanaam mooy at taazim mooy màggal nit ki kon jëlal laabal nit ki wala ak laab wala barke wala barkeel ko wala màggal nit ki bu ñeenteel bi nag mooy at tanzih mooy tanzih bu ñeenteel bi rek mooy tanzih mooy setal nit ki maanaam setal ko boo setal gi nag boo ko teg laabam nañ ko bàyyi xel euh, boo gisee ñu koy teqaleeg laabal gi mooy setal gi daa nekk loo xam ne borom bi tabaraka taala képp ko jagoo muy tanzih setal borom bi tabaraka wa taala ci bépp sikk setal yàlla ci bépp sikk gépp wàññi ko moo tax boroxox biñ koy buñ koy buñ koy biñ koy limaare nga gis ne borom xam rek dañuy wax ne baatu baat bii di ak taqdis daa bokk ay maana mooy tanzih am na ñu bëri ci mu fatu ñoo xam tanzih lañ koy jox directement waaye daa bokk ay maana rek moo tax ibn al-Faraj day wax ne bu ñuy al-Quddus وهو وهو ذلك مع ذلك المعنى لأنه منزه عن الأضداد والأنداد وصاحبه والولد تعالى الله عما يقول عما يقول الظالمون علوا كبيرا يعني بني بات بات التقديس moo tax kon baatu taqdis gis nga ibn faris da koy teqaleeg diggante ak tatahir ak ñeneen ñu dul ñoom sax kon nga gis ne boo gisee ñu tanzih mu tanzih ak tatahir donte bu ñoo bokk li ñuy boo ko doon firi ci wolof ñooy xawandro waaye maanaa ba bokkut tanzih ci maani taqdis kooku yàlla képp ko jox moo tax kon da nga gis ne kon am na ñeenti maanaan ci baatu taqdis kon ginnaaw bi ñu dajalee mbooleem waxi borom xam-xam wala li ëpp ci waxi borom xam-xam ci borom xam ñi xam ne ñoo taalif ci maajimul lugha ci lugha arabiyya lugawi yu nay ak yenn ci mufassirun yi ngay gis ni kon amna ñent ñeenti ma am ci baati taqdis li muy firi bi ci njëkk moy at tataha at tathir moy tahara labal nitki euh la koy labal nak dañ ci ñëw bu soobee borom taala man naa doon ay sikk wala mu doon ay ñaaral moy al baraka barke ñettal moy ak magal comme ñu comme ñu léré ci ci ci ci wi wii jàll ñeenteel mooy ak tanzih te boobu bi nga xamne borom taala borom bi taala képp ko jago léegi kon gis nga di kon taqdis ñeenti maana yëpp lay firi ñeenti maana yëpp lay firi léegi nag ndax dagan na ñeenti maana yii ban moo ci dagan ndax dagan na ginnaaw boo xamee ne xam nañ ne ñeenti maana yëpp daje léegi laaj bi nga xam ne mooy teeru foofu mooy ndax dagan na ngay taqdis keneen ko dul yàlla ndax dagan na ngay taqdis nit ndax dagan na ngay taqdis ab sëriñ ndax dagan na ngay taq di keneen ku dul borom tax wala wala leneen lu dul yàlla lu bokk ak nit ah kay da nga gis na dagan na da nga gis na dagan na taqdis da nga gis na yàlla borom bi du melokaan wo xamne borom bi kep ko jago bal taqdis borom bi taala melokaanu yàlla la al qadaasa melokaanu yàlla waaye melokaanu keneen ku dul borom bi tabaraka taala dagan na ci sharia تقديس يلا تقديس تقديس تقديس كان كان كان يقود المرمى تبارك وتعالى لورو داي ام تولو من عمل الشريعه لخ بو خول معنى تقديس دا وجدنا التهاره والتعديم دا نتي بو سن برم تعالى واي دا ني جيتال جي واخ جو خامني دا ني جيتال تي ني واخ جي ني واخ تي ني تقديس دغان نا لولو نيوكو جيك واخ واي بروخ نيوكو جيك واخ كتي نيك بوك نك نيوم العسكري ابي هلال العسكري كوكو بوكو سي وارم خا نيانو دانيو فاتو سي كاتريم سيكل سي تيرم بوغ الفروق اللغويه نينا بيم كاي ليرال نيو خا نيو تير لي بو خا نيو دكو تاديس ngir leral baat yi nga xam ne dañoo nduróo te am différence day wax ni wa taqdisu tanzihu cheyi an nuqus nuquus والحاصل أن la لا bihi subhanahu bal بل fi في حق الآدميين يقال نانا baatu taqdis li wirtu te mooy taqdis du loo xam ne borom bi képp ko jagoo déedéet loolu képp képp ko taxaw naan taqdis yàlla képp lañ ko war def loolu ak réer ndax borom bi tabaraka wa taala ci jëmmam taqdis boo boole ci maanaa yim làmboo yëpp da nga gis ne yàlla ci jëmmam def na ko ay nit yàlla ci jëmmam def na ko ay saxaaba taqdis na ay saxaaba kon bu fekkee da ngay ki nga xam ne daa jàpp ne boo boo taqdisee keneen tudd yàlla rek jaam nga ko wala jën wala bokkaale nga kon boobaa borom bi tabaraka lay jëkk a tuumaal dana leer ci adilla yi tekki ne mayes naa taqdis keneen ko tudd yàlla waaye nag ci ñetti maanaa yi jëkk yi العسكري نانا أبي الهلال العسكري مكتب رخام يجنا مكتب رخام يجنا فاطل كتلون سيكل كتير نبود الفروق اللغوية نينا بعض تقديس ببعض بوخم يلا كيف وكذا هو وايدن كل إتبي سوبر أدمي دني تقديس مرمت تقديس دونت نياري نياري كي بكت وايرك دني كل جهلي كده أدمي نينا نينا فلان رجل مقدس إذا أريد تبعيده عن مسقطات العداله ووصفه بالخير ولا يقال ولا يقال رجل مصبح بل ربما يستعمل في غير ذوي العقول ايضا فيقال قدس الله روح فلان ولا يقال صبحه نعنا آه، ما آه، شيخ شيخ شيخ الامن نعنا ولا عسكري ابي جاري عسكري نعنا تقديس بلو خمني بربي كيف وجبه وايدين كو اتليزو بشي دومي ادمي nee na dagan na sax dañuy wax ne fulaan muqaddas diw day muqaddas la fekk na lañ ci bu fekkee lañ ci jublu mooy daa lépp loo xam ne day dox diggante nit ki ak maanute moom melokaan yëpp da ca fekk maanaam daa fekk ci ay jikko yu bon ak jikko yu jeng kooku dañuy wax fulaan muqaddas kon da ngay gis ne kon ba taqdis ginnaaw bi ñu dajale maanaa yi maax maanaa yi nga xam ne moom lañ istiqra ci ab bu ci mooy at tahaara laab taadim màggal ak day day firi sax ab salaa waaye boobu nag charge la moo tax wuñ ko di firi taazim bu mujj ba di firi tanzih da nga gis ne taqdir dagan na ndax dagan na ci sharia am déet ndax dagan na nga defal keneen ngul yàlla ah kay dagan na sax nga defal ko leneen lu dul nit loo xam ne sax du nit far loo xam ne ay garab la wala sax loo xam ne ay ab suuf ab suuf képp la loolu dagan na ci sharia kon mbokk yi loolu mooy li nga xam ne moom lañ jiital bu ko defee bu dee maanaa bu njëkk bi ñi leeral adilla yi ñi leeral adilla yi tekki ne taqlid keneen ku dul borom bi tamit al dagan na waaye nag buñ ne dagan na ci jublu mooy bu dee ci ñetti maana yu njëkk yi ndax taqdis buñ ko waxee day làmboo ñeenti maanam ñetti maana yu njëkk yi muy attahaara laabal doomi aadama ci ay sikk ak bakkaar bi deme noonu ak màggal doomi aadama ak wekk ko ak lu ci moom ak barkeel ko yooyu yëpp daganal nga def ko doomi aadama ndax loolu lépp di duggaat ci biir taqdis ginnaaw taxaar day koo ko def rek taxaar maanaam yi nag moo tax may wax taqdis nga kon taqdis koo day daal dagan ginnaaw taazim nit ki keneen ko dul yàlla day duggaale ci biir maana taqdis comme ni ko leeralee kon keneen koo ko defee ko dul yàlla taazim dagan na ci sharia danañ leeral adilla yi wa kadalika ginnaaw tabrik mooy barkeelu nit wala jàpp ne nit dafa am barke wala barkeelu ci moom loolu day duggaale ci buntu taqdis ci jëm ci lu ci ilmu ci luxal arabiya kon loolu la muy tekki mooy taqdis keneen ko dul borom dagan na Euh, loolu it boo boo gisee koy leeral mooy baat la boo xam ne ba matlaqin bi nga waxee rek dangay ngay tiit boo gëstu da defe ni keneen boo kenn kooku wéer ko dul yàlla rek yow tàbb ci njaaxum rëy waaye nag maanaa bu mujj bi ci ñeenti maanaa yi ma waxoon muy ak tanzih boobu moom mooy bi nga xam ne ci dëgg la nga koy defal kenn ku dul yàlla tanzih mooy setal yàlla ci doom setal yàlla ci muy am soxna ak doom yi nga xam ne muy muy muy muy am àndandoo ak doom ak bopp bépp melokaan wàññi ko yi nga xam ne yéefar ñeeg malaaxida mom lañ ko tumal bu mooy bi nga xamne yalla kep mo moo yàlla la jox kon buñ ne taqdis kenen ko yalla yàlla lañ djul moy maana bu mujj way ñet makna maana ñek yépp dagan na bu fekke mom nga ci jublu ci baatu taqdis bi bobu dagan na nga def kenen ko dul morom bi tabaka ala fañ ko leeral ci adila li ñu kon bu dé taqdis gi nga xamne day ñu makna maana dagal na nga dagan na nga def ko kenen ko dul morom bi tabaraka wa taala te loolu yàlla wax ci alquran ci سورة الأحزاب آية بوبليو آية تطهير تشيعي بقولون يالد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لا يجوز أبتي مفصل يوه أن مربي تتعلم بقوفه آه، موي يالا دلي بقى لابل كي أي بكار تكو أنك نيوم معصوم نكم ديكو لول صحيح تيرين لول دي سنوقتا تكو أن نيوم معصوم نكم نيوم خمني استدال بيغا خمني مولي جي أشياء جي waye liñ ci xësam ni ko Cheikh Islam waxe di jëmmam Cheikh Islam do firna lay joju yàlla ci jëmmam wax na ni yéen doomi adama yi moy yitu ali salam ak soxna yitu ali salam ak waa yitu ali salam yep rek tam ko ci ay soxna ñëpp yàlla yu nam ci yéen moy tati xiir leen laabal leen setal leen setal leen ci lan ci bakkar setal leen ci bakkar kon da nga gis ne kon loolu ak dalil bi tekki kon saq kenen kudul borbu dul borom taala dagan na bu fekke nak maanaa ñet maanaa yi nga ci taqdis bi maana tatheer wala taqdis bi maana at ta'zim wala taqdis bi maana at tabrik moy taqdis gi nga xamne ne dañ maana tathir laabal loolu dagan na bokku la la yaka tax moy inna ma yuridu allah li yudhhib ankum rijza ahla albayti wa yutahhirakum tatheeran loolu moy laaj njëkk ñaaral bi ñaaral bi ci la ñaaral bi batay tey kazalika ci hadith bobu ci hadith bobu nga xamne ابن ماجه رسل لكو الباني آه، محدث الصلفية وير لكو آه، ينتبع عليه السلام وحني ما يحدث بسيو ينتبع عليه السلام وحني لا قدست حديث بقود لك لما تشخ الله لا قدست أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها لا قدست يعني لا قدست ما نيان الله نيان الله بو خامني جيت عليه بو نيانال اي حديث بقود لك yu atam dafa ñaan ne yalla bu yalla kellal xet wo xamne ay aw nit wo xamne euh duñ jëlé ci duñ manam deesul jëlé dara ci ñinga xamne dañoo am kattan diko dimbalé ci ñinga diko dimbalé ñinga xamne dañoo ñëw doole da nga gis ne kon euh da nga gis ne fii laa quddisat quddisat baatu taqdis lay utilisé wu الإمام ابن أسير ne la tuhirat fi تهرت في bi ma'na at-tahir yalla bu yalla xel wo xamne li moy seen bir duñ dimbalanti mukk yermale amu seen digeenti yàlla bu yàlla yàlla bu yàlla selal le kon maf lolu mafhum bi manam mafhumul mukhalafa moy mooy lan xeet woo xam ne dañuy dimbalanti yàlla na yàlla selal le kon hadith ba bokk na ci hadith yi nga xamne moy tekki ne tati taqdis kenn ko dul borom bi taala dagan na ci sharia bu fekke dañ ca jublu ñetti maana yi def ci moy maana yi njëkk yi moy at tahara التعظيم اك التبريك كون لو بوك نتي لوكاي تكتالي مو بوك تي لي تكين تاك جيس كينن كودو يار دغان بو فيك تي معنى طهار نك لا تولو موي لاي جوجي نك تي سوره الانفال بروم بي تبارك وتعالى واخو تي خرب ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام fii nga xam ne borom tëral leen daf wàcc am ndox ngir lan laabal leen laab gi nag du laabu xes yi loolu ibn al asbahani yaani arraqib al asbahani leeral na ko ngir laabar leen ci lan ci bakkaar ak laabar leen ci ak bakkaar dind ci yéen tilim tilimi cheytaane kon lu mu tek moy taqdis kenen ko dul borom seetaan dagan ndax yàlla ci jëmam moko ko saxal yu daay sax na ko ci hadith bokku na ci lolu moy won laaya joju nga xamne man ci suratul baqara bi malaaka yi laajee borom bi tabaraka wa taala laaj ko ne ko euh maanaa أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونقدس لك الزجاج بولي معاني القرآن بيمكن في دفعني لنجي ماي وانو نطهر أنفسنا لك وكذلك من أطاعك نقدسه أي نطهره نعم زجاجنا ونقدس لك لم يفري ونقدس لك نك أك ونقدس ونقدسك بكت دنيوته ونقدس لك فهو دفع تعد دفع لك لم يتعدي كلام ونقدسك نك فهو لك تعدي مم تعدي بين حرف دفع نيو ذلك تسلط مفعول مباشرة لولو ay furuq luxawiyya la yoo xam daa mat a bàyyi xel wa nuqaddisu laka gi nag az-Zajjaaj nee li muy firi mooy wa nuqaddisu anfusana ñun ñu daal di laabal suñu bopp daal di suñu bopp malaaka yi ñuy wax ñun dañu ñun ñun ñun malaaka yi ñu ngi laabal suñu bopp ñu ngi taqadis suñu bopp di taqdisaale képp koo xam ne ni ngay topp ngir mën laa jaam dañuy laabal suñu bopp ngir mën laa mbokk yi loolu ay dalil la loolu dana doy ci ay dalil ay dalil la ñuy tekk ne kon Euh, baatu taqdis maanaam baatu taqdis taqdis keneen ku dul yàlla dagan na boo ci jublu maanaa tahaara ñaareel mooy taqdis keneen ku dul borom bi tabaraka wa taala dagan na bu fekkee dañ ca jublu baatu ak barke bi taqdis maana bi ci barke mooy barke nit jàpp ne nit ki daa am barke jàppe ko ko nit ko am barke wala wala ko loolu tamit dagan na ci bokk na la koy tegtale bokku na ci li ci sel kon taqdis nit ki wala taqdis lenen dul yàlla wala kenen ko dul yàlla ngir djublu ci bi makna al baraka wa tabrik lol daga na sharia te lol yàlla ko def utiliser wo ci al alquran laaj yàlla wax ne ya qawmi duxulu al ard al muqaddasata allati kataba allah lakum al muqaddasah yani al muqaddasah moy la nga xamni ne dañ koo sellal xanaa du xanaa du taqdis moom bordatul ala kep lañ ko war def boko defé kenen ko ku rek ko yow boba jaamu nga ko déedéet nga gis ne bordatul ala mo ngi koy def sax lo xamni du nit far muy doomi adama muy taqdis doomu aadama taqdis gi nag bi maana al mubaraka mooy loo xam ne dañ koo dañ koo barkeel kon lu boo ko jëlee ko teg tege bu dee taqdis gi nga xam ne day day ñëw bi maana ab taadi màggal boobu tamit dagan na nga defal ko keneen ku dul yàlla muy yénanteeg muy lu mu ci doon taqdis gi nga xam day ñëw bi maana ab taadi boobu dagan ay adillaam bëri na ci sunna si yonent bi alayhi salaam ci sunna si yonent bi salawaatu wasalaamuhu alayhi bu dee taqdis gi nga xam ne day ñëw bi maana albaraka bokkam ci ak ay ahadis yu bëree bëri yoo xam ne ahadis yoo xam ne la muy tekk mooy saxaaba yi ci jëmmam dañ dan taqdis yonent alayhi salaam taqdis goon bi bi maana tabrik jàppe ko am barke di barkeelu ci moom loolu boo demee ci hadith yu siiw te bari lool boo demee ci saxi Buxaari saxi Muslim hadith Abi Musa al Ashari mu wax ne kuntu inda nabiyi sal allahu alayhi wa sallam wa huwa nazilun biljacrana bayna makka walmadina wa maahu bilal fa ata nabiyu fa ata nabiyu sal allahu alayhi wa sallam arabi فقال ألا تنجز, ألا, ألا تنجز لي ما وعدتني فقال له أبشر فقال قد أثرت علي من أبشر فأقبل على أبي موسى حديث بقول له لم تسوق لال يدعى السلام دا رد البشرى فاقبلا أنتما قال فأقبلنا ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال اشربا منه وأفرغا على وجهكما wa nuxurikuma wa abshira fa axada alqadxa fa faala muy xadis bu gudd yusuf alayhi salaam daa woo ñaari saxaaba yii abi musa al ashari ak ki mu àndaloon daa di jël ak këll euh, daa di cay raxas ñaari loxo ya raxas ñaari loxo ya de raxas kanam nga mooy sëlmu ca guux ca yàbbi war ca saxaaba yi daal koy naan doon ko ndamoo nag doon ko ndamoo euh, saxaaba yi daal koy naan jamono jooju ummu salama ma nga ma nga nekk ca ma ngay gis bimu mu leen gisee ñu koy naan ak maanaam ak fonk ko loolu di ko gi ummu salama daa ne leen afdila li ummikuma fa fa afdala laha wala fa afdala laha minhu taifatan may leen ci seen yaay kon saxaaba yi kon dañ daan taxriij al bi maana at tabrik jàppe ko ko am barak muy xadis yu bare bare bare te siiw bokk na ci xadis yooyu ba tey Buxaari xadis ba mu génne ci kital magaazi muslim génne ko kadalika ci xadisu abi musa al ashari ñu ngi tubi alayhi salaam maanaam yutub alayhi salaam bu masaana def li ñuy wax an nuxa muy ñandaxit saxaaba yi dañ ko daan dañ ko daan dañ ko daan xëccoo ay musal ashari nee na wa ida tawaddaa kaadu yaqtatiluuna ala wuduihi walwudu wala walwudu bi fatxil waaw ma taqaatara min maai wuduihi an aadaihi sharifa yutub alayhi salaam day jàpp ba pare ndox mi jógee ci njàpp mi duggee ci lii bi saxaaba yi di ko xëccoo ngir naan ndox njàpp mi ak barkeelu ci sëlmi loolu kon loolu lan la jàppi nit ki toqali nit ki la jàppi nit ki ko am barke toqali bi maanaam tabrik la jàppi nit ko am barke ak di barke wala ci mom ko sahabi da ko loolu bi teg mooy it ay salaam la ci moy taqlit nit ki dagan na taqlit keneen ko jàll dagan loolu dafa sax ci sunu ci bi ay salaam loolu sax na ci sunu ci bi salawaatu rabbi wa salamuhu alayhi ak ci yenen ak yenen ay ahadith yu bari ni ko noonu xadis abi juhayfa hadith abi juhayfa wax ne yusuf ay salaam dafa taxaw dafa taxaw nit ñi jàpp ci loxoy yi di ko mar maam nit am ñoo xam da ngay mar loxe am ñoo xam dañ koy ñang koy fompo ngir lan ngir barkelu ci ay ahadith bare bare wax na ci euh yunus bi alayhi salam dal leen cay iqrar bayi leen ci kon da nga gis ne kon tak lolu mooy dalil bi tek ne kon taqdis gi nga xam ne day ñoo bi maana at tabrik lolu dagan na taqdis gi nga xam ne day ñoo bi maana at tabrik lolu dem dagan na nga defal ko keneen ko dul yalla lolu mo des ko defal min dir eh, kon loolu bokk na ci di ko gën a tegtal sax mooy ijmaa'ul muslimin jullit ñëpp dañoo dëppoo ci ne baatu jullit ñëpp dañoo dëppoo ci ci ne jëfandikoo baatub al baytul maqdis wala baytul muqaddas boo jox baax na dagan na loolu jullit ñëpp dañ koy dëpp dañ koy dëpp ijmaa boobu rek dalil la ci ne kon taqdis du borom bi képp ko dagoo dagoo déedéet waaye keneen ku dul borom bi tabaraka wa taala des koy taqdis ni ñuy taqdisee yàlla noonu la ñuy taqdisee mindeef waaye rek taqdis bi maana tanzih boobu la ñu xam ne yàlla képp ko jagoo loolu loolu mbokk yi daa ma xam bu dee taqdis bi maana taazim leerloon naa ko sànq yàlla sax na ko ci alquran wa id qulna lil malaikati isjudu li aadama fa sajadu loolu lañ koy def ay uh, maanaam ay mazahirul ibada la ngir lan ngir màggal aadama alayhi salaam loolu lay duggaale ci buntu taqdis ndax loolu taadim la ta lépp taadim rek day duggaale ci buntu taqdis kon mbokk yi ngir bañ a guddal uh, باتو تقديس موك لولو ماي تقديس معناه لولو ماي تقديس في اللغه العربيه معنى يويد ام ماي الطهاره والبركه والتعدين والتنزيه تقديس نك ديتاغينا يالا كيبو يالا كيبو ديغو كوم نكو علي ابي هلال العسكري لو خيتي ديبل الفروق ديريكت دنج كاي ديفال كي نكو بروم بي دنج تقديس يالا دي تقديس من ديف بروم بي تبارك وتعالى دنج كاي تقديس di taqalif keneen ku dul moom di taqalif mbindeef di taqalif nit ak lu dul nit loolu dagan na bu fekkee nag ci ñett maana yi njëkk yi moo xam taqalif goo xam ne bi maana taajib màggal taqalif goo xam ne bi maana tabrik mooy jàppe ko bar ko am barke di barkeelu ci moom wala taqalif goo xam ne bi maana attahaara mooy attahaara bi la ismi wu mucc ay bàkkaar wala set ci ay bàkkaar yu demee noonu ak tilim tilim xol yëpp dagan na kooku man di taqalif boobu taqalif ñett maana yi dagan na loolu dagan taqalif maana tanzih nag boobu la ñu wax dëgg nga defal ko keneen ko dul borom taala kon mbokk yi loolu leçon bi ñu ciy tiiree ci point bi njëkk bi mooy euh, baatu taqdis li tax borom téere bi tuddee ko téere bi loolu taxawil la loolu ko xam dëgg nga xam ne taxawil la maanaam boo gëstu da ngay defee ne baatu bu ñëwee yow day taqdis ngay taqdis ngay diw da ngay defee euh, maanaam mën ngaa tiit wala nga defee ni da ngaa def lu rëy fekk na taqdis keneen ku dul borom bi tabaraka wa taala dagan na ci ñetti maanaa yi nga xam ne moom lañu seete léegi ci liñ ko leerale kon mbokk yi loolu leer na kon taqdis keneen ku dul borom bi tabaraka taala dagan na ci sart yooyu ci maana yooyu ñu leeral ginnaaw bi nga xamee ne gëstu li nga xam ne moo xaram sharia ci jullit mooy mu taqdis keneen ku dul yàlla wala leneen dul yàlla te jubli ci maana tanzih bu ko defee taqdis gi nga xam ne nag moom yàlla képp lañ ko defal mooy nga mbooleem melo melokaan yi nga xam ne yàlla képp ko jagoo melokaan yi nga xam ne yàlla képp ko jagoo nga xamne mom kep ko jogoo lu mel ni rey ak wiral ak febaral ak alak ak ñàkkal nit ki ak womal ko ak dundal ko ak faat ko yu demee noonu ak wàcce taw yu mel noonu yoy yep yep yep nga jàpp ne mborom bi kep moko mom te it jàpp ne mborom bi tabaraka wa taala amul ñëbb amul doom mbooleem melokan yi nga xam ne ñi al almasihiyuun al yahudu nasara dañ koy yëkkati nga la koy dakal yàlla lolu moy maana tanzih dakal ko mbollem melkan yi xamni al mushabbiha al hashabiyya dañ koy melal yàlla nga dak koy dàqal lu at taqdis bi maana at tanzih boobu dëgg nga def ko keneen ko dul borom tabaraka taala way ànd ak loolu lépp nak melkan yo cheikh lam taymi ci jëmam leer na doomu aadama doomu aadama dana ko am dem len ci majmu dem len ci majmu dem len ci tere bobu di al qa'ida fi bayan al mu'jizat wal karamat cheikh lam islam taymiya ak ci tere bobu di majmu al fatawa cheikh lam neena Cheikh Lam leer na ni fal nee na boo demee ci majmuul fatawa volume 11 page 177 ci tabu mayot nee fal ula قدرية كونية والثانية شرعية دينية وكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية وقدرة الأولى التأثير في الكونيات وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات كما أن الأولى تنقسم من تأثير في نفسه كمشيه, كمشيه على الماء وطيرانه في الهواء وجلوسه على النار وإلى تأثير في غيره بإسقام وإصحاء وإهلاك وإغناء وإفطار كذلك الثانية نانا نعم. دومي آدم جمم كشف جنا بأم بنت دائرة كشف جمم معجزة يلا منا ما ينك كل أبيرنت نت أبيرنت أبيرنت كل أبيرنت بنت بيتي كرام لدن وقت أم كرام جو خمني أبيتي أب xudratu xudratu tasir fil kawniyat mooy di tasir di jeexatal ci monde bi di jeexatal ci na muy tasir yi nag benn mu mu tasir ci jëmmam mooy lu mel dox ci kaw ndox naaw bi ma ci ëppal nag mooy doomi aadama ci jëmmam mën naa am àgg ci am lu ñuy wax xudratu tasir fil kawniyat mooy mën a jeexital ci monde bi mooy di feebaral melokaan yi nga xam ne yàlla ko doon def doomi aadama di ko def mooy di feebaral di wéral di alak di ñàkkloo ci ci yoonu mucjisa nag waxuma ci yoonu aadiyaat yi mooy ci yoonu mucjisa loolu Cheikh Islam jëmal saxal na ni nit ki mën na koo loolu Cheikh Islam jëmal saxal na ni nit ki mën na koo am xanaa kon Cheikh Islam jëmal moo njëkk taqdis doomi ay moo njëkk taqdis kenn nañ ko dul borom taala loolu da ngay gis ne ab saaqa bu rëy la ci kaw borom taqdis asxaas ndax ci moom mooy muctamadam moom mooy ab sukkandukaayam sukkandukaayam bu mu fonk la boo dem ci ñaari ifaas yi da nga gis ci ay bërëb yu bëri mu koy mu koy défendre loolu kon loolu loolu loolu kon leer ñaar rek mo Cheikh lam saxalaat na ci jëmmam doomi adama ci jëmam man na aaji ci tasiir yalla may ko tasiir muy tasiir ci monde bi bay ag sax di maye doom far melokan yi nga xamne eh, ci kaw gi ni boko ma sañu xol la nga nan ki kat yalla kep ko jagoo ko ko defal keneen koo ko jàpp man nako takdis boko Cheikh lam jëm doomi adama Cheikh lam jëmam neena doomi adama man nako muy tasiir ci nit ñi ba ag bay maye doom melokan yi ngarak koy wéral borom bi ngarak ngarak koy wéral kenn ko kenn ko borom bi ta'ala moy doomi adamay ma wax xeflam day wax ci bo agge ci majmu'ul fatawa day wax ni وله تأثير إما في الأناس إما في الأناس وإما في غيرهم بإصحاح وإسقام وإهلاك أو ولادة أو ولاية أو عدل كون موكي لولو موي توم بو نجيكي بي ديفنا ني لير نكون تي ني بات التقديس تي جيمم بو فيكون ني ويرنا ني ايرو تاسوف دنج كو ديفال سيني bu fekkoon ni ahlul tasawuf wér na ni dañoo dañoo taqdis seeni masaayix dañ leen a jàppe yàlla di leen jaamu wala di leen taqdis boobaa da ngay gis ne dagan na tasar taqdis keneen ku dul yàlla dagan na waaye nag bil maana bil maani al lugawiya borom téere bi nag gëstu yëpp moom fekk ko ci moom loolu moo tax kon da ngay gis ne kon loolu la muy tekki mooy yàkkamti radd ak am benn xarat comme comme ni mu ko leeralee ci njëlbeen gi loolu moo ko ci yóbbee kon taqdis moom bu daganoon sax maanaam bu fekkoon ni wér na ni ñun dañ koo def ahlu tasawuf dañ ko dañ ko def seeni masaayix ak seeni nit loola taqdis dagan la taqdis bi daganu kay mooy taqdis bi maana tanzih te boobu sax Cheikh Lam nee na taqdis googu keneen ku dul yàlla sax mën na ko am keneen ku dul borom taala mën na ko am kon loolu mooy njëkk mbokk yi ñu ñaa ñu ñëw ci point bi gannaaw seex bi dafa wax ni ahlu tasawuf ñoom dañuy taqdis seeni masaayix mooy dañ leen dañ leen jàppe ay yàlla dañ leen jàppe ay maanaam dañ leen dañ leen jaamu génn leen ci cadre doomi aadama yéegal leen ci cadre al yi uruhiyya par nag boole ko ak mbokkaale ci ñeenti maanaa yi nga xam ne moo tënk baatu taqdis léegi yooyu la ñu ñëw ñaareel point bi ñu ñëw ci leeral euh, lan mooy taqdis ahlu tasawuf ci jëmmam lan mooy taqdis fa ñoom ñoom lan lañ jàppe baatu taqdis maanaam ahlu tasawuf lan lañ jàpp baasu taqdis mooy lan fa ahlu tasawuf loolu ci ñaaral tum boobu lañ fekkee ñëw ba sooy borom bi taala mbokk yi ngir leeral ba dañuy ci ñaareelu point bi mooy ahlu tasawuf ci jëmmam ndax li li leen cheikh bi waxal dëgg la am jët dañuy njëkk a gaaral li leen cheikh bi waxal lan la ba pare cheikh bi ci taqdis asxaas ci paas ci ci ci paas volume 1 paas 46 maanaam paas 46 jàpp paas euh, paas 45 jàpp paas 46 dafa ubbi بن buntu daal di leeral nee na wal muraadu bi taqdisi shaxs rafcuhu fawqa manzilatihi allati anzalahu allahu iyaha معتقدا أن له من القداسة الذاتية أو المقتسبة ما يستوجب الخضوع له والإذعان لأوامره دون عرضها على ميزان الكتاب والسنة مع التوجه إليه حيا أو ميتا بأنواع العبادات التي لا يجوز التوجه بها لغير الله نينا li ma jublu ci taqdis taqdis sax bi nga xam ne moo nekk ci moo nekk ci alfikri suuf yi mooy fekk doomi aada nit simple nga yëkkati ci wàcc cadre doomi aadama ci wàccuwaay bi koy ci wàcc wàccuwaay doomi aadama ba pare nag jàpp ne dafa am qadaasa ak cellate goo xam ne moo moo moo waral lépp lu mu wax nga jël ko lu mu wax rek ba daa mel ni waxi borom bi tax fa yow ànd ak nag boole ci nag ndi ko jaamu buy dund di ko jaamu di ko jaamu euh, ba faatoo kon nga gis ne kon لي لوخ موم نين لي موي تقديس نين لي مو نيك تي الفكر الصوفي الفكر الصوفي سين تقديس دي نيل ديمي باتاي بو ديمي تي فاز 9 بو ديمي تي فاز 9 ا ورا غادي تي مانام غادي تي فاز 9 تي الفكر تي تقديس اصحاب تي فوليوم 1 نينا لير لامك فلي ميم ميم واخ جيره واخات نينا فظهر لي ان جميع قنواته الفكريه والعملية تكاد تصب في بركة واحدة هي وسيلتهم في نشر كل ما عندهم من مفاهيم وتطبيق كل ما لديهم من تعاليم ألا وهي بركة تقديس الأشخاص ورفع هؤلاء المقدسين فوق المنازل البشرية نمل وخافر بوري بورمة جناية التأويل الفاصد كذلك من نملك بوري بورمة جناية التأويل الفاصد نانا في بوري بورمة جناية التأويل الفاصد باس 482 482 نانا والصوفي جناية تأويل فات انك بنين تير لبوق تقلش تقلش الاشخاص ان انا والصوفي شخص سلك طريق سلك طريقة من الطرق الصوفية على يد شيخ موصوف بالوصول عند الصوفية وصار على الخط المرسوم له وتدرج الى النهاية حسب تقدير شيخي آه، ما نم ما نم لو جيت بوك لو جيت يعني، عفوا له هني والرسوم العملية التصوف مجموعة من العقائد المطلقة والرسوم العملية المخترعة تكونت من مناهج كثيرة وتأثرت بعوامل عديدة ثم تفرقت إلى طرق ومذاهب لا يعلم عددها إلا إلا الله وعلى رأس كل طريقة شيخ مقدس مطاع كون nga نكون نانا تقديس في الفكر الصوفي مم ليرنا suufi moom بربي مم ليرنا ci ñetti بربي مم moom leer na ci ñaari bërëb yi ma tànn تيرم بيدي آه، جناي في تأويل خاطب شيخ بنانا تقريف جناك في فكر الفكر الصوفي تفهو تقريف جنيدة ما يتقريف دومي على فك نت ديكو جامو بيدم ديكو جامو فاتو أجيب جنة في كاتب دومي على ما يلغو يلغو جي المنازل الألوهية لولو ما يتقريف خاط عندكو بقالة بقالة جي بقالة جي فيم وخي فيم وخي بقالة جي لير لورنات تي تيرم بوف ànd ko bokkaale bokkaale borom bi tabaraka wa taala leerlu naa ci ne daa bokkaale daa bokk ci maani taqlis indahu ind ind ind ahmad lu léegi nee na lii mooy taqlis asxaaf léegi nag dañuy dem ci ahlu tasawuf ñu xool ñoom lan lañ ñoom la baatu taqlis ci jëmmam lan lay firi fa ñoom ahlu tasawuf ci jëmmam gannaaw cheikh bi daa wax ne moom yër na njëkk muy bind téere bi njëkk muy wax lii lépp daa yër masadiru suufiya yu yàgg yàgg yu mujj yi tàmbale ko ci gën a yàgg ak yu mujj yi moom di ko yër moom mel ni kon def na ci bu gëstu moom wax na ko ci njëlbeen téere bi léegi dem ci téere tasawuf yi euh, xool ñi tànn ci yenn rek maanaam accès guñ nag ci ndax la mu wax wér na am déet waaye ñoom baatub taqdis ahlu tasawuf ñoom lan lañ ko jàppe ahlu tasawuf baatub lan mooy at taqdis fa ñoom waaw danañ boobaa ci la ñuy xam ba xam moom li mu wax ne liir na ba xam doog a bind Euh, moom li mu wax wér na wala wér moom laa wax ni taqdis fa ñoom mooy mooy jaamu fekk nit ki di ko jaamu bi dund ak bu faatoo ànd ak nit boole ko bokkaale borom bi tabaraka wa taala loolu nag tudd ma ko fii jàng ma ko mais leeroon naa ngir baama gi bañ a boole ko it génn ko ci cadre lu bi adama ko ci cadre al uluhiya mais nag loolu mooy taqdis inda tasawuf léegi nañ dem ci ahlu tasawuf nag léegi ñu laaj ahlu tasawuf ci istilaax ba xam baatu taqdis ñoom la lay firi fa ñoom boobaa benn ñaar moo mën dañuy dëggal ci ne taqdis li muy firi fa ñoom mooy ci jaamu nit ki bu faatu ànd ak nag génne ko ci cadre doomi adama yéeg ko ci cadre a uluhiya al manazil uluhiya ba pare nag boole ko ak mbokkaale benn ñu wax loolu bu ñu waxee loolu moom xalaas intaha kon lañ wax ak li cheikh wax dëgg la kon cheikh bi kon gëstu na seen wax benn ñu weddi ko ñu xam ne kon wax ji tuuma ju rëy rëy la boobaa nag du def lu may borom daal di tuub daal di jéggalu borom tabaraka taala mbokk yi bala ñoo tàmbali dañuy dañuy leeral ci ne baatu baatu taqdis ci jëmmam ahlu ahlu tasawuf dañ ci am benn istilaax te dañuy wax ne li kulli fannin rijaaluhu wa li kulli fannin istilaaxuhu fànn bu ne dafa am istilaax te loolu ñëpp dëppoo nañ ci almuxa yaani almuxaalifu wal mu wal muwaafiq ñëpp dëppoo nañ ci ne fànn bi dafa istilaax léegi nañ xool ba lam istilaax taqdis ñoom dañu am ahlu tasawuf dafa am lu ñuy wax taqdisul xaq ak taqdiisu taqdiis ndax ahlu tasawuf dañoo am ay islaaxaat islaaxaat yooyu benn da nga leen koy laaj ñu wax la ko wala wala borom bi tabaaraka wa taala jëmmam xamal la ko waaye ci loolu bu dul ñaari yoon yi mënu ko xam te loolu Ibnul Qayyim wax na ko ci Madaariju Saalikiin nee na ahlu tasawuf dañoo am ay ibaaraat yoo xam ne ñoom ñoo xam lañ ko jublu léegi nag gannaaw cheikh bi moom nee na taqdiis mooy nangam ak nangam kon ñu ko leeral ci al-fikri suufi nañ dem islaaxu nañ dem lan mooy istilaaxu taqdis indi sufiya kiñ ki ñu njëkk tànn ak kiñ wala kiñ ñu ciy àndal ci ahlu tasawuf kenn la ci borom xam-xam ahlul tasawuf di kàngam ci ñoom mooy Abdirazaq Kamaluddin Alqashani Abdirazaq Kamaluddin Alqashani rahimahullahu taala ci téeréem boobu ci ñaari téeréem téeréem bi mu tuddee lataiful lataiful lataiful i'lam fi isharati ahli al ilham téere la boo xam ne da koo taalif ngir leeral ci waad yi nga xam ne ahlu tasawuf léegi-léegi ñu ngi koy wax maanaam waad yi nga xam ne waad yi nga xam ne ahlu tasawuf léegi ñu ngi koy wax benn bu ci nekk li ñu fiir gannaaw moom ñoom la bokk war naa mën a xam loolu lan la euh, kii ko taarif mooy Abdirazaq Alkashani wala nga ne Alkashani mi faatu atum 736 kon nga mën nga ni soriwut ak Cheikh Ibn Taymiya man jamonoonte naag Cheikh Ibn Taymiya Ibn Taymiya rahimahullahu taala bokkoon ci kàngami ahlu tasawuf ci téeram bu tuddee Lataiful I'lam fi isharat ahli ilham nga xam ne mucjam la dictionnaire la boo xam ne da koo bind ngir leeral ci mustalahaatu suufiya boo àggee ci téere boobu nee na boo àggee ci téere volume un page trois cent trente quatre nee na taqdis ahli tasawuf am na lu ñuy wax taqdisul xaq ak taqdisul xalq léegi nañ nañ xool mu firi ko ba xam nu mu koy firi ndax da koy firee fekk ay nit génn leen ci cadre doomi aadama jëlee ak di leen jaamu bu ñu dund comme ni ko comme ni ko cheikh bi waxee loolu nak mom mom nañ xol ba xam lo manam non la koy firi wala dit wala mom kimi muy kan la mom manam laaj bi mooy xaasaan yi moo ñu wara leral ba baatu taqdis fa ahli tasawuf moy lan ak ñom kan lañu ñuy ay nit lañu ñuy ak di leen jaamu wala taqdis bu moom daam keneen ko ngey koy bo dem ci bo dem ci tere mbub di la taiful i'lam qashani neena nee na taqdisul xaq دابوك إصلاح الصوفية تقديس الحق عن عن العلوين معناه تنزيهه عن العلو المكاني almakani جميعا أما تقديسه عن العلو المكاني فظاهر لاستحالة تحيزه تعالى وأما تقديسه عن علو المكانة فذلك بمعنى أنه مهما توهم ولا مهما توهم علو ثم أضيف إلى الحق كان الحق أعلى من ذلك وإليه الإشارة بقوله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى أي عن كل علو بقي دبل نانا من أهل تخوف دفع أمني وقت تقديس الحق مويلا سل لي الله الحق ما يبرم بالرفع على تقديس الحق سل لي الله كون نجيس نكون فوهو بل ما دوب تفيدي مري الفوف رك أقرب دمين في نخ كذا نيوم دايت كذي تقديس تقديس كن كذا فما يبرم آدم بلن جامو بنيو دون أبن فارو fii moom mu ne taq ñun ahlu tasawuf taqdis fa ñun mooy tax taqdisul xaq taqdis gi nag danaa ñëwaat bu soobee borom taala danaa ko leeralaat ci yeneen téere loolu mooy ñeent moo waroon ñeenteel tom bi suba suba jàmm bu soobee borom taala waaye fii istilaax bi laa leer damay leeral istilaax bi asaani nee na ñun ahlu tasawuf taqdis fa ñun mooy taqdisul xaq mooy mooy sellal yàlla ci lan lañ koy sellal mu ne anil uluway ni ci ñaari kawe yi ñaari xeeti kawe yëpp ñun dañuy fexe ba setal yàlla ci ñaari xeeti kawe yi sori la yàlla ak ñaari xeeti kawe yi loolu nag boo ko déggee da day xaw a jaaxal ndax yàlla ku kawe la nga dégg nit naan la man damay setal yàlla damay sori la yàlla ak ñaari kawe yi mooy ñaari kawe yi damay fexe ba dàqal ko yàlla te ku ne xam ne melokaani kawe sifatu min sifatil kamal kii ñëw ne dama koy setal yàlla kon loolu da ngay xam ne kon am na istilaax bu yéeme bu waaj waxe waxee bukk tax bi nga xamoon mu ne anil ulubay bi ñaari xeeti kawe yi ba ci bu ñaari mooy maanaahu tanzihuhu anil ulubi al makani wa rutabi xaasaani nee na ñun taqlit fa ñun taqlitu xaq sellal yàlla fa ñun mooy sellal yàlla ñun dañuy sellal yàlla ci ñaari ñaari ñaari ñaari kawe yi kawe bu njëkk bi mooy al uluwul makaani kaweeg bërëb wa bi ak kaweeg daraja ñun dañuy ñun dañuy ñun dañuy daqal yàlla dañuy dàqal yàlla kaweeg bërëb dàqal yàlla kaweeg daraja maanaam yàlla kaweeg daraja buñ saxal dañ koy daqal yàlla maanaam dañ koy dañ dàq dàq nag foofu dafa am maana boo xam ne mat naa xam dañuy sellal yàlla sori la yàlla ak ñaari ñaari kaw yi loolu xaw na lan si day day doon lu yéeme yéeme mu firi la ko mu ne wa am amma taqdisuhu wa ajlu ulul makaani bu dee sori la yàlla sellal yàlla ak sori la ko wàcc maanaam kawek bërëb loolu moom fa zahir listihaalati taxayusihi taala loolu moom li fës la ñëpp xam nañ ko te mooy li ahlu sunna wal jamaa li wax nafyul jiha borom taala du koy ne ci bërëb du koy taxayus di féete ci bërëb ndax bal daa nekk mbindeef moo xam ne borom taala moo ko sàkk te ahlu sunna jamaa yëpp dëppoo nañ ci yàlla taxayuz ijma boobu qaadi yaa soxal na ko ci al ikmal wa al abi kadalika الطحاوي te al الطحاوي العقيدة ijma إجماع وكذلك ibnu abi xayaan kadalika toxal na ko borom xam yu bare bari toxal nañ ko kadalika ci nay borom toxal ñu du koy taxayus ci bërëb al baghdadi toxal na ko ci al farq loolu moom mas masala aqadiya la mu ne nag wa amma taqdisuhu an uluwi makaana bu dee nag sor la yàlla ak wàccuwaay bu dee sellal yàlla ak sor la ko kawe kawe kawe kawek daraja ne na loolu liñ tibli ñun ahlu tasawuf mooy fa dalika bi maana annahu mahma tuwahima uluwun summa udifa ila alxaq kaana alxaq ala min dalik ñun liñ tibli mooy dañoo gis ne saa boo defee ci sam xel ak maanaam daraja daraja ji kawe joo joo mën a imaginer sam xel rek maanaam saa boo xalaat ci sam xel benn daraja yu kawe daraja yu lu kawe kawe kawe borom bi taala moo gën a kawe maanaam doomu aadama toog nii rek di xalaat ay daraja yu kawe di xalaat ay wàccuwaay yu ay rëtab yu kawe daraja yu kawe yoo di xalaat rek boo xalaatee ba tey rek yàlla ko gën a kawe maanaam daraja yu kawe yoo mën xalaat rek borom bi taala moo ko gën nee na loolu lañ jub loolu lañ jub ahlu tasawuf loolu lañ jub ci ci taqdis taqdisul xaq an uluwi l makaana mooy fexe ba so sori la yàlla ak wàccuwaayu bërëb wàcc wàccuwaayu wàccuwaayu daraja